ay euh, cas de viol. Mm-hmm. Euh, donc mu mel ni yooyu la ñuy jot yi nga xamante ne nii xëy na fësal nañ ko. mais am na mm-hmm. yeneen yoo xamante ne nii comme nu mu ko waxee tout à l'heure nëpp nëppal geeg maslaa beeg yooyu noonu daf koy nëbb. xam nga boo xoolee li nga moo moo ëpp ah, li feeñul. Mm-hmm. moo ëpp li feeñaa. te fi jamono tollu ja actuellement ci nouvelle technologie. moo tax xëy na yu bari des fois bu amee. gars yi commencé ko relayer à travers la presse. mais biir kër yi. la ci am doy na waar trop trop trop trop. Hmm. des fois da gis waajur yi dañ ciy teg seen bët xam hmm. ci dara. Hmm. nëpp nëppal ndax affaire doo mbokk. Euh, très souvent li mu gën a yem boo dégg cas de viol yi ci biir kër yi nga dégg ñu naan nijaayam. waaw nijaay la plupart du temps ci nijaay rek lay gën di dara te nijaay ji moo habilité pour maye jerbaatam. mais nijaay ji bu demee ba xarit nekk ci jarbaatam su fekkee yoon may na ko ko xanaa mu dem ñaani ko mais malheureusement mooy nijaay yi wala cas de yi ñi muy dal duñ nekk ay majeur mm-hmm. ay mineur la ñuy doon des fois da ngay sa xale ba mu ne naan cinq la commencement bi dañuy jël seen awra di ko fo di ko fowloo xale bi mm-hmm. dem ba ci biir jël seen awra di ko jéem a dugal ci gémmilu gone gi mm-hmm. dafa am ay actes ñuy tàmbalee. duñ ñëw rek ne ci parce que ñoom plaisir la ñuy wut. am na ñoom ne feebar la ci ñoom. feebar la dañ koy faj mais xeetu feebar bi bu la dalee da ngay faju ci am na ñu am sax soxna dañ koy def. c'est pour dire que dafa bari. Hmm. ay pàcc yoo mun a laal. Hmm. léeg-léeg sa gis ko xam ne day am day day day ñëw xaar ba soxnaam génn mu dem ci jànq ba. di jëflante ak y' a beaucoup de cas mais damay déglu l'association des juristes du Sénégal surtout les femmes juristes ñoom ils portent oui bokk nañ ci ñi tax tey Sénégalais yi gën a yeewu sax mhm. ci pàcc boobu à travers des journées de sensibilisation ci ndaw ñi ci borom kër yi dem nañ ba recenser presque ci 2021 2022 bi près de 300 cas yo xamante amna ci lu feeñ mais yooyu ñu del siwaatee à la base la source dundal mi ñuy dundee nous avons une cohabitation sociale bo xamné environnement bi dina bok ci li influencer wala li andi ay attouchement ci biir famille bi ndax da ngay yeewu ci kër fekk lu mot fukki nit ak juróom wala ñaar fukki nit ak juróom jaxasoo ba am fa lo ne mën na faa judd. promiscuité bi. merci beaucoup. te doo ko mën a wax. niñ ñu koy waxee daal ci jigéen yi mais day dal góor ñi. day gis ay xale yu góor yu ne ci kër gi nekk ay xale. mais ay. jànk yi di leen sàkku wala seen kii sax. bi gën a garaaw sax. góor ak góor. bari na xale yu góor yoo xam ne ñu ngi ci biir famille bi. mais seen i mbokki góor ñu ngi leen di sàkku ci biir kër yi. te duñ ko mën a wax am na si ñoom ne bu ñu demee ba nekk ay mag psychologiquement si li ñuy soog comprendre xam ne ñoom lañ leen doon def lii la. Oh. man j'en connais naa waxtaan ak kenn koo xam ne mag la kilifa la mais kooku souvent si je le vois bu wéetee rek day tuur xewal. ba benn jour ñu waxtaan ma ne ma bi ma nekkee boy. dama sama benn cousin boo xam ne saa su ne man ci ginnaaw. Oh. bi ma demee ba mag si laay soog am affaire góor jigéen moom xoolal côté bi mu ko féetalee moom.

Sénégal il y' a près de 300 associations il y' a près de 3 associations yu mag yoo une association lesbianisme Fini. fii nii. fii ci am mais attends ils vont pas déclarer que association lesbienne est créée, L'association wala mais tous les partis politiques sont des associations. tous les mouvements sont des associations récépissé association ngay yor mën nga ñoo créer association aar askan association aar njaboot fekk règlement intérieur bi nga xam ne moom nga war a soumettre assemblée euh, ci PV bi mm-hmm. PV bi ngay déposé du jot ak dara lu jëm ci wàll wi nga xam ne mm-hmm. yow moom ngay def mm-hmm. c'est pour dire que titre turu association bi amul sens ñi fi woot y a plus de trois cent cinquante partis politiques au Sénégal est-ce que tous les partis politiques dañuy dem élection est-ce que partis politiques yëpp am nañ siège

dañ koy jëflante ak ñoom. inceste la foofu. c'est grave am na ñoom ne seen yaay ñoo am yëg-yëg ci ñoom. Oh. Mm. di sëy ak ñoom di saxu ak ñoom. mais dama jàpp ne tey pour situation boobu gën a changer il faut ñu andiwaat éducation de base. Mm-hmm. bi nga xam ne mooy jikko. soxna si ab réew jikkoo ko yor te jikko ji ci kër gi lay tàmbale. su weesoo feebar bi nga xam ne day dab nit muy góor ku muy jigéen ki. mais am na ñoo xamante seen biir environnement tey bu ñu demee ba ubbi kaamil wala ñu jàng alxuraan wala ñu jàng benn nax jugu Serigne Touba bind gis ne Serigne Touba wax na ci ne nangam ak nangam ak nangam araam na daganut. Mm-hmm. yow au fur et da ngay dem di am kersa parce que boo ko bëggee dafay ne ah Serigne Touba dinañ te moom laa yaakaar yaru mag ñi njeexintalu yaru mag ñi loolu lay def ci nit ndax dangay jombale sa bopp dara. Mm-hmm. nit nag bu demee ba jombaletul boppam dara. Mm. ndax bànneexu bakkanam. mala ko tane. No mala ko tane parce que mala yalla dako bind te amul xel mm-hmm. du xalat day jëf rek doomu adama su demee ba xel bi ko yàlla suñu borom jox dootu ko jëfandikoo mm-hmm. ngir xalaat bu da nga doon dox gis xaj ak xaj di ci mbedd mm-hmm. gëj nga koo gis gisatuñ ko da ngay dox di gis nit ak nit di sey ci mbedd ah, jamono ji da ngay xëy di dox di gis góor ak góor di sey ci ay armel da ngay xëy gis jigéen ak jigéen di sey gisatoo ko rarement ngay gis xaj di ko def rarement ngay gis nit di euh, euh, muus di ko def léegi ñenn nit ñi ñoo dem ba yor koy mala hmm. di ko jëfandikoo suñ demee nag ba jamono toll foofu nit ku nekk yaay jël sa njaboot nag téye ndax Sénégal dañ toll foo xam ne la responsabilité parentale day imposé wu ci wajur wu ne si doomam surveiller sa doom surtout yar sa doom éduquer sa doom solo yow ni nga ko bëggee éduquer poñe ko nag téye ko nag naj ko mais malheureusement nag par ces temps si cours ni les parents ont démissionné. fofu nak moy problème bi. parents yi dañ démissionné koo ci xam nga lu la taluma len damay daw dépense. mais muy góor ak jigéen. mais lolu mo mais lolu gis nga loolu. dañoo tok ben jour. seen TV di ci débat manel ne la. prétexte boobu képp ku koy jël te ngay woy jur soo demee yow mal xam suñu bam dina la àtte. Ah, àtte bi mu lay àtte mooy ku dégager ay responsabilités ku daw engagement mm-hmm. ñaare ba dina bokk ci atte boo xam ne suñu borom dalaa jox nit nga war koo defar nga bàyyi ko mu yàqu wuti dépense suñu papa yi ñoo ko dàqoon téeméeri junni yoon suñu jamono yi ndax suñu papa yi dañu doon xëy yorandoo ñeenti soxna wala ñeenti soxna kër gi yëpp njaboot suñu xëy suba bongoon ñu ngi daw di dundal kër gi te pourtant bu ñu toogee ba guddi gi 19 heures ana diw newul ci kër gi mu dem wuti yatam teg ana diw ñu ne ko tëddina muy ubbi ci néegi di vérifier puy mi nga xam ne moo ci gën a dëgër bopp moom buñ dugg si ñaar danañ toj ŋaam yi wala ñu dugal ko ci néeg bi duma ko wala bu demee ba ci biir duma yi bari bu yàgg ñu commencé ko woo ko conscientiser c'est comme ça qu'on sa famille mm. mais fii ñu toll nii soxna si ku ci nekk na nga sa njaboot réew mi yàqu na xetu yàqu goo xam ne boo yaree ci biir kër gi soo defoon nag bu génnee ci biti mbedd bi jël wàllam hmm. mais mbedd bi lu mu jël jël jël wàllam am na loo xam ne kersa yaa koy def ci nit am na yoo ne am nañu kersa tey génn magum jëma ah, génn ci biti am na kersa def loo xam ne leer na ko ne suba bu ñu ko ca naree yedd. Mhm. dina xalaat yaayam. donc nañ delluwaat jikko yi. defarawaat kersa yërmande ak jomb jomb yooyu nag moo tumuraan. waaw dignité moo commencé jeex sëñ Tuubaa wax na ko ci jawartu mhm. nee na manatu nafsiya noot leen seen bakkan. Mhm. wa zaxzaxtu lahin. ngeen daw iblis. ahastu min dunya àdduna ngeen noot ko. oustaz di la jëlee war xaajale xawaa bànneex nee na ñett yii surtout bànneex bakkan ak àddina lu waaye dugg ci du duna ñett yi ñoo la ko defloo. Iblis nag da nga koy moytu ndax yàlla suñu borom moo la koy sorelal mais tànk tënkuwuñu ci njàngale mag ñi ak ci jukku yi. Sénégal dinañ yéex a lijjanti bi. alors euh, mu nekk loo xamante ni euh, lu metti la ñen ci askan wi euh, di ko dund kon niñ ko waxé tout à l'heure rek li ñu war ñun en tant que ñoo xamante ni dañu leen jege moy rek ñu assister leen sur le plan psychologique.